salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokki àddina ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ba tey di leen jox seen wàccuwaay ak su nekk fekk nañ la fa nga toog ne la jabaloxo yéen soppee Dakar 24 yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziyaara tey nag dañoo dalal ndaanaan ah dalal artiste dalal ki nga xamante ne ni aada ak cosaan dong lay yëngu muy gayndey géejawaay bi ñu koy wax ñànka ñànka ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. ñu di la jox sa wàccuwaay. waaw waa rek di leen bëggee rek. di kontaan si bés bi ngeen teew tamit. waaw ah, di bëgg ñëpp di bëgg sama xarit yi toog waaw mm-hmm. ah, di la bëgg. géejuwaay gépp maa ngi dégg ñu naan bisu ñànka bisu ñànka xam nga dañoo dañ kumpa ñu ne dañuy dem xool loolu lan la li li ngay waajal lan la. waaw eh, lu may waajal benn affaire la rek 72 heures la 72 heures bi pour géejawaay la pour bokk xalaat la pour Sénégal bi yëpp mm-hmm. pour képp kuy daaba kuy simbukat si bis bi nga lu waral ma def ko nag 72 heures bi dama siy wàcce kaamil. wàcce kan, dama si fasaale képp kuy jullit ku làqu génn àdduna la si fasaale ñaan jàmm tamit si réew bi suñ ko defee vendredi le 28 bi ngoon gi ñu def conférence de presse xam nga am lu nu waxtaan géejawaay ak Sénégal ak si jeunes yi yëpp ak entreprise yi suñ jógee si loolu samedi bi incha allah si suba gi dañuy set bëgg bi sunu mairie la polisu Géejawaay sunu police la préfecture sunu préfecture la ngoon gi nag ñu def concert bu mag a mag boo xam ne concertu gaynde yi lu musul am la ñuy def te dina si art invité artiste waa Géejawaay yëpp ñoom caat Seck ngaa xam ne moom déggoon na mais nekk fi daam tournée kon day teew ñoom Badou ñoom Aada Géwél ñoom mbooy ñeneen nag ñeneen ñoom Cheikh Lo ñoom Bour Gueweul ñëpp. mais loolu noonu nga wootee mbaa dina am sécurité bu mat parce que dañ ne simbkat bu wootee du am sécurité pourquoi ñu leen di bàkkee loolu. non loolu waxin la rek sécurité man mi rek sécurité la gay lay tamit taxaw sécurité la mais nit ñi moom ñoo mën a wax rek di wax ndax sooy xool làmb noonu lañ koy waxee leneen ak concert leneen ak leneen football bi loolu la ñuy wax mais simba moom amul benn violence kaf la foo ree ambiance loolu dong la te bis bi tamit loolu lay laaj te dina am secret ku ñëw di nga ñëw si jàmm ñu bégal la nga ñibbis si jàmm. ku ne xam na ni képp koy simb yaay baayam mbaa woo nga sa mbokk euh, gaynde yëpp ñu ñëw yaay seen papa de. non <laughs> samay gaañ la du ma seen papa de. yaay dan ma dan ma moo ragal la. non ragaluñ ma de ma jox cër rek. Mm. waaw dan ma jox cër ndax samay raq lan. waa ñi xam nga amna ño ñoo xam ma jër si aar bi samay mag lan non duma ma nappe de gaan ki ngay gis babakar Oké ngi tok sama gaan la moo mu ñëw fi day am bisam yëgal mako ma doon mu def ma magam ma koy teg yoon di kay jox ay conseil muy dégg loolu nak ñun deseetuñ dara ci ar, xeyna ma maa ko jër si ar mom moom daf ma doon di simbu di organiser simbu di ma jël ma leen di simbal di leen bégal ba tay yalla def muy simbu xam nga nit ñi bëgg ko si lool muy démb rek barke démb rek la jógee Joal dem simb fa simb bu rëy invité woon na ma sax mais temps bi ak programme yi moo tax dew ma te suma sañoon damay dem si programme bi waaw. léegi ah, programme yooyu nga ngay ngay waajal kan kan nga nga ciy woo. non ñëpp képp kuy daabo kuy sëmbkat woo naa si Babacar woo naa ko. yi ndax woo nga leen. waaw ah, woo naa leen ku ñëw baax na ku ñëwul baax na ndax affaire géejawaay la kenn waru xaar ñu woola woo nañ si Lat Diop si Alioune Sall woo nañ si Ahmed Aïdara woo nañ si sëñ Medoum Sey borom tawféex woo nañ ko si woo nañ si ñëpp nag waa géejawaay yëpp woo nañ leen si ak képp kuy sëmbkat région yeeg yëpp woo nañ leen te dañuy teew su neexee yàlla. dañu gis ni da nga simb lu waral loolu. non programme na. simb fan yee rek simboon temps yi simboon naa mais programme moo tax mënuma ko booleeg simb xam nga doo dem di simbi bëgg di dox yeneen mission yi nii day metti léegi su luy jeexee la programme di ensena ndax le 3 war naa si simb man ma aj ba le 3 programme le 10 war naa si simb après lépp ay simb lay doon incha allah kon mi ngi noonu gars yi euh, ndaanaan bi lañ dalaloon euh, muy ñànka moo xam ne bu simbee nga kontaan ñun ba ñuy xale ba tey mu ngi ñuy bégal képp koo xamante ne da nga di gay da ngay artiste euh, ñëwal ci bis boobu woon na la ci ndax moom doomu géejawaay la géejawaay gépp la fi nekkal kon yow mi may seetaan fii ci Dakar 24 woo naa la ci bésu ñànka bi champion bi moom xol xolum dafa rafet day day ñàngal noonu nga ragal ko te fekk na <laughs> ñi xamul ñànka nag ñi bëgg ñànka am ñoom dañ naan dama bëgg ñànka te xamuñu ko ñànka ñànkaa ngi ni nit kese la waaw borom baax la jàmm rek ngay biir Dakar 24. ñu ah. Mhm. Ah, waaw mooy yoon Dakar 24. Mhm. noonu dafa demee danoo war a teew ñëpp sites yëpp danoo war a teew. Mhm. ndax bis bi seen bis la. te bisu géejawaay la. waaw di gërëm Babacar sama ménagère njool paa kay sama gaayan la. rek sama xaaju kër yëpp moo ko liggéey birig yëpp moo ko rangele waaw loolu laay wax Babacar su amee lu mu siy sànni. mu sànni ko si waaw di gërëm ñëpp nag géejawaay senegal ñëpp. group bokk xalaat maa ngi leen di gërëm fédération des faux maa ngi leen di bëggee di bëggee képp kuy gaynde ku lim jum ñoom Madiaye ngi ñoom Baba Aleng fi ñoom Amna Ndiaye paa bi ñëpp a ngi fi ku lim daal jum ñoom Yuga ñoom Seex Ndom ñëpp ñoom papa ñoom Pape Naar gaynde yëpp daal ah ñëpp maa ngi leen di bëggee di bëggee Sénégal di bëggee Géejawaay yëpp. ku baax ci si ñu ngi maa ngi taw feex bu baax a baax yéen ci kawam. nga sa ruus da looy ñaxtu. dama mer rek waaw xam nga ñun moom danoo nekk ci Sénégal bokk ci Sénégal di ay sénégalais comme li ko sunu grand sunu patron sunu mag sunu papa sunu lépp waxee sànq da nga wax te mais cay biir wax sax xamoo li nga wax da nga ni kuy simb fii mooy sa baay ndax kila jiitu ci néeg bu lëndam moo lay wax fii ngay toog ñun bu nu bëggee simb à cause de ñànk la muy ku baax. soo ko xamul nag mën ngaa dégg lu ne ci moom ndax man mi jaxase woon nan maag moom ba ma dégg lu ne ci moom tout récemment bi may dem Joal bërki démb di fa simbi déguisement bi may yóbbu ñaari paire déguisement yi ma sol yëpp ci moom laa ko jëlee waaye man nag fula la am xam nga fula ji maam mooy lan mën nga maa jaxaseeg nit tey waaye bu ma xamee ni mu mel kenn dootuma jaxaseeg moom ndax dama bëri fula ñaxtu bi may ñaxtu mooy ñun ay sénégalais lan di doomu dëkk bi toxuñu sàccuñu genzuñu agressé wuñu di di daan suñu doole léegi lii boo ko yóbboo bitim réew tubaab bi dañ lay seetaan ci fay ay millions ñun fi ñu dëkk mun ñu ko exploité ñu naan insécurité mais nawetaan li muy rey simb rey ko làmb li muy rey leneen rey ko danoo bëgg sécurité bu ñuy simb bu ñu joxe ñaari gémi sax ñun ñu fay ko. ci des fois des fois da ngay dem simb gaynde di xeex seen biir gaynde ndaw yi léegi ñoo yàq simb bi. man mos dem naa simb toog gaynde yàq simb bi ñoom seen jëm bopp ñoo ko yàq. man mosuma gis gaynde bu xeex ci simb ah, en tout cas man sama écrit am fa te écrit am fa. xam nga tey il faut mettre les hommes qu'il faut au place qu'il faut ce qui veut dire ñànk tey moo ñu jiitu ñun ñëpp géejawaay banlieue fi géejawaay pikin kuy simb bañ na ko ba man damay simb sol li muy sol gën ñu naan ñànkaa kee mooy ñànk bi so soo ko bañee da ngay dee ndax yàlla ko jiital sama doom bu góor man damay simb mu ñëw ne ma mënoo ñànkaara dàq simb comprendre nga léegi nag lu lu mais autorité yi dégg nañ riiru ñànk dégg nañ riiru simb policiers yek préfet yek yooyu pourquoi pas ñu convoqué ñànk jël benn kayit teg ci loxoom ku bëgg sim mu jaar ci moom mu ñëw garanti ko toog ci simb lu fa am mu dem ne diw la lu ñu wara a fay mu jaar ci loxo mu fay ko parce que da ngay jiital kenn comprendre nga da ngay parce que li mu wax wàllam wéy na def na li muy def ba pare mënatul def lu mu deful woon yaa ngi dégg te ñun dañ ne facteur de développement mais ñun li la nam ki ki ngay loué bâche bi mi ngi ci jariñu ñuy tëgg ñu ngi yóbbu seen kër di ci dépense su gaynde yaa ngi yóbbul seen yaay kiy jaay kiy luwee siège yi ticket yi mais mais ñun nañ ñu jox suñu gëdd parce que euh, genn golo gàtt na lool mais loo ci laal borom yëg ko comprendre nga te bis bii muy wootee occasion la pour autorité te xam nga ce qui m'a fait mal tey ku bëgg a falu bëgg nit ñi xam la danga naan jëlal ñaari gaynde booy campagne pour nit ñëpp génn waaye man fu la la am ren ku ma woo pour ma campagne la du ma la campagne fu la laa am fu la ju bari laa ci àndal comprendre nga bis bii muy def na autorités yi génn ñu taxawu ko ci jàppale ko ci ñu wax ci sunu doléance ñu woo ñu duñu jox suñuy autorisation parce que dañuy fay comme ñëpp lu ñu fayloo ñu fay ko bu dee dañoo bëgg sécurité euh, homme de tenue yi nekkaluñ fa lu dul sénégalais yi nan ñu ñu fay oto mu ñëw wala policier ñu ñëw taxawal ñu ñu def suñu liggéey ku ne dem comprendre nga ku dem man daal noonu laa ko gisee di ko ñaanal mu gudd fan yàlla sunu borom baye ko ci kanam njabotam ndax ñun reccu ñu limu jiitoo nak li tax mu am tur nag ñanka ñanka ñanka ñànka macha allah xam nga lu ko waral respecté juram respecté bop ndax limu ñëk njëkk a wax man ko ah jour bi ma koy jàpp laa la wax fekk ñu jote woon Babacar man ko amul ah, ma nit dina ma waxal lu ne mais barki sayidina muhammad musuma tok ci sëriñ nit ñaanu wajur la am te gëm sama wax boobu bi ma ko waxe ba leg dafa dafa am lu mu doon dafa wu ci man am lu def ci man comprendre nga ma koy ñaanal li suñu yef la mom du yëfam mesul def anniversaire ba ma ci barke seigne fallu mais dina xam ne nag lii sama yef la man personnellement diko ñaanal yalla bayiko ci kanamu njabotam bo yeme andal yalla bayiko ak ñom li ñu yaakaar ci moom tubaab xam lu graw ci sama kat gis nga ñank gi mu yor so ñewon ba fekk ko fi mi tekke wala bu paree non da ngay xam ne ñun war nañoo jar nañoo jàppale fekk na ko bon mu defar la mu ngi ay nit a ngi koy yaakaar mu leen jox muy ñuy yóbbu seeni i kër ñun ci dëkk bi lañu bokk nous sommes des sénégalais carte national nationale Sénégal lañ yor déggoo ma de carte nan ñu boole ci ñun li ñu bokk ci suñu suñu aada ak suñu cosaan la ñuy def. lii ñun ñoo ko moom amul keneen ku ko moom eh, eh, mais tubaab yi ñu ngi tëgg ñu ngi fecc ñu ngi way si mbogu nu de. mais nii ñoo ko moom mais na ñu bàyyi ak suñu yëf jox ñu autorisation keneen est problème. waa date bi nag vendredi la le 28 samedi le 29 dimanche le 30 du yomb nag man ak Daaba yeeg artistes yi ñoom Thiat Seck ñoom Badou ñëpp fi. waa Mbour yi dañuy ñëw waa Géejawaay dañuy ñëw waa Caara yi waa Sam-Sam yi waa jàmm gën yi ñëpp senegal yëpp ay ñëw ku bëgg a gis lu yéeme lu doy waar. le 29 nak na nga tew si concert bi concert gayna musul am fenn te fi lay amee way bëgg na lan télé bi nak si kanama kanama kanama ah. ño far am lan jamm rek am leen jamm wa ñu ngi won euh, ci Dakar 24 ba tay ma dala ma nekk ak euh, Ousmane euh, ki Ablaye Sow moy cameraman bi nga xamni ne lu mu ndey da bax maa fi nekkon man ci mbere bi c'est champion bi deug du neex chéri dada ay ci bu baxé ya ñu dem doxalal